am mbokk yi comme ni ma leen ko waxee rek ñu ngi nii fii ci Dubai Textile fii ci Serekunda nar a jàkkaarloog ñoom ñoom it ñu wax askan bi li nga xamante ne moom lañ am ci um, independent market place nee naa la bu fedd jot rek QTV ne nga toog sa kil ñu won la li nga xamante ne moom lañ am ñu di ko jaay mu doon njëriñ ci QTV njëriñ ci ki nga xamante ne mooy jaay waaye tamit njëriñ si yéen ñi nga xamante ne yéenay seytaan um, ñu ngi nii jàkkaarloog suñu caaman bi di Abdou Abdou nuyu naa la. waaw fay naa la yaa naka nga def. sant yàlla bu baax a baax Abdou yéen lan ngeen am fii biir um, Dubai Textile lan ngeen amal askan bi ci independent waaw ñu ngi am rafet nag ñu ngi am piis yu nice parce que ñun moom always ñu ngi am US ñun moom Dubai soo moom macha allah piis yu US til yu rafet parce que ñu ngi wàccee yu nice nga xam ne pour client yi la spécial waaw ñu ngi am eh, tamit lu mel ne ay mbasañ mbasañ seconde jesner ay jesner pire. Eh. Um, lees bi bu gaata la wala bu waaw am nañ lees bu gudda am nañ lees bu gaata. maanaam lu waay bugga rek. lu waay bëgg rek am na fii moom ku fi ku bëgg a sanse ba dugga fii moom macha allah di nga am yu rafet ñun sanse rek lañ man moo ku ku fi dugg moom mën nañ la feeboo nga am lu nga xam ne loo bëgg a tamit te doo sonn dañ laa jàppale ba nga am loo bëgg a waaw parce que ñun moom customer yi moom ñun ak moom ñun ak ñoom benn lañ dañ dee dimbalante waaw dañ dee feeboo gars yi tamit léegoo léegi su seeree sax dañ leen dee dimbale ba ba ñu am luñ bëgg waaw. gannaaw euh, mbasañ bi lan lan ngeen fi am. waaw am nañ til tamit nag til tamit am nañ ci til yu ees rafet waaw am nañ ci til yu nga xam ne moom foo ko sensé moom nga taxaw ñu xam ne waaw yaa ne waaw yu mel nii euh, comme til euh, sable yi am nañ ci différent différent façon yu nga xam ne saa yu ees lañ bu ñëwee yaagul yow gis nga leen yooyu moo xam nga ne ku ko sensé moom macha allah da ngay am lu bëri waaw <laughs> ñun moom lu ees rek lu ees moom ku si bugg na fi ñëw. ku bugg a sensé rek sensé tag la jox ñëwal fi soo fi ñëwee moom dañ laa jox yu nga xam ne lu rafet macha na. waaw paillettes tamit am nañ si different type paillettes moom am na yu nga xam ne yu wàcce yaagul sax waaye yu nga xam ne bari waagul si marché bi am naa ku fi ñëw tamit mën nga si am lu rafet sensé ko nit ñi de la laaj foo ko jëndee xam nga waaw. waaye dafa mel ni tamit borode yéen ñi ne borom. waaw borode moom Serekunda fi ñoo fi ñoo si teg la moom. waaw gis naa fi façon yi borode yoo xam ne ko fenn waaw noo non Serekunda borde moom ñoo si teg loxo borde moom borde boo mënta soxla soo ñëwee danga ko fi am. lan mooy seen téléphone number yi maanaam ku leen bëgg a jot si ban number lam leen a mun na jotee. waaw ku ñu ku ñu bëgg a jot da ngay call 711 7712 711 7712 Qcell line bi am na 5217111 5217141 5217141. ndax seen yi ñu ngi whatsapp ku leen mën a jot ne leen maanaam xam nga am na ñoo xam ne nekkuñ fii ñu ngi bitim réew waaye tamit dañ dee bëgg a jënd piis si dëkk bi ni ñi yónnee leen ko ndax seen nombre ñu ngi whatsapp waaw waaw ñu ngi whatsapp ñu ngi on whatsapp mbokk yi ba tey ñu ngi fii ci Dubai Textile nar a jàkkaarloo suma xarit bi Ibrahima Ibrahima naka nga def jàmm rek alhamdulilah yaa ngi jàmm ah bi kay macha allah am na ñu arrivé pour indépendance am na brode bu xamante ni boo toll mu toj demande bi broderie suisse bu original bu diis bu design bu xamante ne bu nice boobu moo xew léegi ak am na tamit ñu euh, arrivé si Snapchat ak am na bazan bu xew léegi TikTok laa tudd. ak lan waay. Euh, après am na original gis naa am na original gis naa ñu ngi koy on time am na original gis mais this time dama order ñu arrivé. tamit til til yii nii mooy waaw til bi til original til ñu ñu order la. dama ko order si Dubai ak China yàggul ma ñëw sax waaw. Dubai la day jógee. non du Dubai yëpp am na yoo xamante ni dafa jóge Dubai am na yoo dafa jóge China waaw mais anytime daal. mooy différence bi ak yeneen yi ñuy piis. suñu piis bi dafa qualité la. ankara jam. ma jam kaarum ko. ma jam. alhamdulilah. oso. Eh, kala jo konte wa sere konte ran konte. Dubai stop. yo o gagene ronkuna o pis gagene ronkuna so o watu nanti kiliyani gabi waye dubai soptuxa you know ona munda suna lukobe ronkuna surtout o maromu you know ibe kana sere kuna rek opposite black market irankuna ni dubai sop angana re irankune angala ini pis be anakitana ya o watu nanti umaromu muku ila ini pis quality ndenya irankune ya because okuda nyeronkune altar ni irankune anganta pis quality ndenkitana irankune angana re iran kune pisi be angada dunan da one sacrifice ne anna kita na iran kune dubai so iran kune di pisi be angana rondi angana bogu selanga so anna me ngari sere ne ken du ken so pe de iran kune pete tey yéen a ngi seetaan seen programme independent market place fii ci bi ñu ngi nii fii tey ci Ibo Town ñara jàkkaaroo ki nga xamante ne mooy borom bëgg a bàyyi Cham Couture fii ci Ibo Town moom nag macha allah dafay ñëw waaye amul rek ci ñëw parce que daf tey ñëw daf tey jaay piis ba pare daf laa jaay daala jaay la poos am na ay daala yoo xam ne macha allah foo soo ko solee rek foofu la alaaji nuyu naa la. waaw yaa ngi lay maa lay fay <laughs> waaw maa ngi fayin bu baax maa lay ziar lu bëree bëree bëri. alaaji gis naa ne nag yaa ngi Dubai ak India ma bëggoon rek nga wax askan bi boo demoon foofu noonu lan nga indil askan bi. dëgg la yaaw lay gannaaw bu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant suñ ñaari waajur di sant suñ sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima Niass di sant sama wasila Nazir sëñ euh, mu sëriñ Omar Fadi Diallo Niass waa di wax askan wi daal na leen ne lu beesang fi fan yi ko indi jugee Dubai ak India muy daal ak poos yi carax yi góor borode VIP yëpp ngi fi daal waaw lépp daal am na fi loo xam ne xeetu sañse la waaw bagage yi nga xam ne right now mu ngi available mooy borode borode VIP yi nii ak euh, daala ak poos yi indi nañ tamit ay jës na first class second class indi nañ tam ay borode VIP mooy yi ngay gis ni si biir verre bi nga xam ne marigay la mooy borode original bi waaw cotine cotine original la waaw ay til yu seer la yoo xam ne doo ko gis ci maquette bi indi naa tamit ay xeeti pièces yoo xam ne pour wedding la pour séedee rek waaw muy pièces yu am classe yu rafet first class jas na mu ngi fi second class jas na ak euh, garniture yi tamit indi naa garniture VIP yu rafet daal yoo xam ne nii ku fi ñëw daal boo ko solee doo ko gis fen te dinañ la ko laajte incha allah. waaw qualité bi moom fii la nekk fii la nekk si Cham Creation loolu moom client yi weranteetuñ ko taf yi ngay gis garniture yi taf yu seer la borode yi tamit borode yu seer la. til yi tamit am naa fi til yu nice yoo xam ne yu seer la bagage yi ma indi yëpp daal bagage yi VIP la waaw because man du ma jaay lu yomb lu seer daal laay jaay dama leen di jaay piis ñawal leen ba mu rafet jox leen daal ak poos tegal leen si spray fu ñu génn daal toj ko waaw sañsa daal Thiam Creation moo ko yor dëgg du neex na gars yi agsi rek fii la mburu mi di xoyam xoyame fii la lépp nekk waaw yéena ko déggandoor euh, Thiam loolu moom neex na li nga wax moom macha allah xam naa ne moom gars yi duñ ko laam-laame parce que ñun QTV xam nañ ci dara parce que bi nga ñëwoon si ak style bi gis nañ ni nga fa ñëwee ak doole ak sanse bu rafet macha allah ma bëggoon rek nga wax ñu tuuti ci euh, yan façon yi piis nga am pour góor yi parce que buñ ne sanse tamit amuñ si jigéen yi rek mm-hmm. waaw fila fili mooy yu nga xam ne latest design yi la US yi waaw indi naa ko pour góor yi daal pour ñëpp fila fili yoo xam ne latest design la dama la koy ñawal ba boole si boole si carax yëpp mu mu doon mu doon full set ma jaay la ko. waaw moo tax ñuy dem ba Dubai India ba China di dem di odal gars yi bagages yu nga xam ne bagages yu classique la bi ko dama day wax ne ma ne nit ki nit ki su fekkee ne dafa bugg a boppam du ragal lu seer waaw te Gambie fu mu nekk nii ñëpp dañ bugg lu quality. koo gis muy dem rek boo ko gisee mu sanse rek lu quality la sol muy góor ñi muy jigéen ñi buggatuñoo sol daal lu yomba waaw lu rek. waaw lu classique moom la ñuy sol moom la ñuy indi moom la ñuy jaay gaay yi yi yëpp daal lu lu yu yu classique la maa ngi invite daal ñëpp na ñëpp ñëw seet si Cham Creation maa ngi fii Ibo Town borom bugg a bàyyi couture borom sanse yu naay si fii daal la lépp nekk na gaay yëpp ñëw. fii la mbuuru bi di xoyam xoyame Cham lan mooy sa nomba bi. waaw suma suma nomba suma whatsapp nomba bi 399 4919 mooy suma whatsapp nomba bi 399 4919. suma beneen whatsapp number bi tamit 739 4919 ñaari whatsapp number laa nekk di use 739 4919 399 4919 ba fanaa number boobu moom ñu bëri ñoo ko cram because QTV every time dañ ko dee jàllale waa ñu bëri ñoo ma dee call na ma ne waa sa number bi QTV laa ko jëlee soo dañ ma dee call ñu try ñëw ba fii jëndalu lu leen neex ma ñawal leen jaay dem waaw na ñëpp ñëw daal maa ngi invite ñëpp daal waaw maa ngi welcome everybody fu nit nekk rek na ñëw seet si Thiam Creation because ñun Gambie dañ bëgg mu dem si kanam. di leen santaat bu baax di leen gërëm yéen waa QTV rek ah, di sant suma suma waa suma waa atelier ñi nga xam ne sumay employé lañ ak sumay apprenti ah, ñun ñëpp képp ñëpp nga xam ne ñu ngi may liggéeyal daal di leen sant bu baax di leen gërëm parce que li olof di wax ñu ne dooley jën ndox la dooley artiste bi public bi la. bi ko yow kenn rek doo mën a dem vitaaw ñi ñi nekk sa gannaaw so ñu nekk sa gannaaw ñoom ñoo lay dooleel di la jàppale maa ngi sant gaay di leen gërëm bu baax di sant suma waajur ah, suma waajuru jigéen muy Khady jóg di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam di sant suma boss As Thiam waaw ki nga xam ne moom moo tax ma mel nii ki tax Thiam Creation ñu koy dégg fu nekk gannaaw suma waajur yi yàlla ak moom la soo di ko ñaanal yàlla bu baax a baax ndax moom moo ma jàppale ba ma man lii tey muy As Thiam nekk fële Babou Fati di ko ñaanal yàlla bu baax baax yàlla na toog ba lekkee njariñu doomam bi ci barki yonte bi sallallahu alayhi wa maa ngi sant suma waajur bu baax di sant sama sama rakk yi ak sama mag yi ñoom ñëpp ñëpp ñu ma jàppale daal maa ngi leen di sant di leen gërëm waa ndax Thiam Création moom kenn rek mënul dara soo ñu nekk si gannaawam ñoo ko jàppale ba mu si fii kon maa ngi gërëm ñooñu di leen sant di sant sama client yi nekk si diaspora bi muy ñu nekk Amérique Germany Denmark Angleterre Finland soo maa ngi sant gars di leen gërëm bu baax a baax ñu nekk si diaspora bi parce que aw gars yi seen fan. Hello, my wonderful people. It's your boy Churchill Ballet, and you already know the vibe. It's independence time. we're out here ñu ngi si biti xam nga di waxaat waxtaan ak suñu customer yi seet lu ñu gay amal si wàllum bagage si independence marketplace bi ba tax na ma ñëw suma first shop di waaj a ñëw seet lan lam ñu amal ñu dugaree waxtaan ak moom toppale ma si biir waaw ñëw seetaan comme ni ma leen ko waxee rek duga ne suñu first waaj a ak ndaandaan bi mu wax ñu lu ñu amal si Independence Marketplace bi waa ji na nga def. maa ngi fi rek. tur bi. Alpha Dia. Alpha Dia waa Alpha. Euh, ma laajte la rek yow la moo la dugal si business in the first place bala maa wa laajte lu ñu amal si Independence Marketplace la ñu dugal la moo la dugal si business. waaw dafa nekk euh, comme benn affaire bi nga xamante man dama ko yàgg a bëgg jaay affaire euh, alimentation man dama ko yàgg a bëgg parce que depuis ma nekk xale dama bëgg a jaay affaire alimentation moom. like uh, depuis 2017. waaw. yàgg nga sa business de. waaw parce que bii moom mooy first time pour ma indi fii nii mais Conakry moom ñu ngi koy indi foofu noonu bu baax sax. waaw yow sa chocolat bi lan la utee ak yeneen chocolat parce que bii nii moom cacao la yeneen yi moom gerte la loolu mooy seen différence. mun nga ñëw wax naka lañ ko defar waaw parce que moom euh, poudre cacao bi lañ jël euh, ñu jël fa euh, yeneen matière comme. yeneen milk comme poudre milk yi ñu mix ko moom lañ ko defal ak cacao bi. ak cacao luy cacao. cacao comme benn doom la bi nga xamante si garab lay jógee ko tur bi xam naa ñaanga de cacao. <laughs> cacao moo nekk moom moo nekk original chocolat. Oh. gerte bi du original chocolat gerte bi da ngay da koy lekk sax di feel like comme like um, yaa ngi yaa ngi yaa ngi. yaa ngi yëy gerte yaa ngi yëy gerte. moom mooy seen différence moom nag cacao moo gën a neex soxlaa yëpp. cacao moo gën a ne so right now chocolat bi fa la ko nit yi mën a amee chocolat bi mën nga ko amee Banjul ak Brikama soo demee Banjul Egan Angle Street mën nga ko am foofu noonu tamit soo demee Brikama tamit si jaawel ñambaay mën nga ko am foofu noonu tamit à from chocolat lan yan yan façon bagage nga nekk di ici tamit si Gambie waaw maa ngi bëgg ici kuus maa ngi bëgg ici tamit uh, bota maa ngi bëgg indi tamit uh, meew maa ngi bëgg indi bëgg naa lu ma bëgg indi naa la bëri na trop. kii caaxaanut de yow defuloo nanka de. ah gis nga bëgg naa indi moom produit yu bëri bëri sax si Gambie fii nii bëgg naa fépp fi nga xamante da koy romb di gis sama produit quoi boutique boo dugg di gis sama produit man bëgg naa loolu moom. parce que li nga xamante dama ko yàgg bëgg quoi dama bëgg comme su ma indee Gambie ñu kontaan si ñu gis produit bi ñu ne ah lii moom apprécier nañ ko euh, produit bi neex na trop bëgg nañ ko tamit loolu laa bëgg. soo rey na mu ngi dem bagage yi ñu ngi dem. surtout maa Sokola bi. waaw Sokola bi moom mu ngi dem bu baax a baax a baax Sokola bi moom taxawul sax bu ñëwee moom mu ngi dem bu baax a baax baax mu ngi dem bu baax. yan place nga ko mën a amee. waaw mën nga ko am Banjul fii nii mën nga ko am tamit euh, ak tamit même si kantin gi ndaw ndaw soo demee tamit mën ko am foofu noonu tamit. Brikama ban bo Brikama si jaawel ñambaay mën nga ko am foofu noonu tamit. Banjul fan. Banjul Hegan su after cooj bi mën nga ko am foofu noonu tamit. soo yan téléphone normal la la nit mun a amee. waaw 582 3305 2033 069 982 4962 boo si call rek danga nga may jot. lan nga am pour tàggatoo ak sa mbokk yu laa seetaan. ma leen di sant ñoom yëpp ñu koy seetaan comme dama leen di ñaan daal comme suñ gisee chocolat bi nañ jéem a xool ñu tes ko ñu xool ak chocolat yeneen yi ñu jéem a xool nu mu mënta mel moom ñu jéem a ñu tes ko rek ñu xool qualité bi. ñi ñi ñi xool daal qualité nañ ko jéem a xool ñu mos ko rek ñu xool parce que xam naa képp ku ko mos moom da koy jënd. xam nga jaaykat du mos a woon ne moom lu moo jaay baaxut. <laughs> waaw xam naa. mais jaaykat bu nekk daf laa ne moom ba sax moo ëpp qualité. waaw mais xam naa mais man loolu moo tax na ma bëgg nag comme ñoom ñu tës ko rek ñu xool man du dama du bëgg sax di wax quoi dama bëgg ñoom ñuy tës. ah déedéet déedéet déedéet foog nga wax. yow soo waxul ñu naka la ñoo xamee lan lan la nekk di saf. voilà foog nga wax. waaw loolu moo tax nag léegi nag ma bugg na ñoom ñu test ñu xool ñu différencier ak yeneen chocolat yi quoi parce que yeneen chocolat yi sax ñoom ay 3 point 2 ngay am mais bii 4 point 2. beneen bu ndaw bi mooy 5 500 kg parce que moom moom dafa neex trop bi dafa neex. ku ko test waaw ku nekk kañ si sa business moo gën a ni waa am naa mais xam nga bii moom moo gën a neex si moo gën a neex chocolat mën naa ne Gambie yëpp moo gën a neex chocolat yëpp. waaw ñu turi chocolat bi tamit. waaw Vanoise la tudd. vanoise. waaw vanoise waaw. loolu French word. waaw French word waaw. lu lu miin. comme lu ma vanoise lu ma firi. vanoise euh, comme like compagnie bu mag la moom ñu ngi ko établi depuis 2003 moom compagnie bu mag la day indi euh, am euh, sucre vanille petit meew ñoom yëpp la ñuy defar lépp. waaw yëpp la ñoo defar mboo ko ñëwee seetaan yi na ko dégga mu ne ngeen dem ngeen test xam qualité bi xam lu moo saf mu ngee baax ko fii nag waaye nañ ko bàyyi yéen seen loxo yéen ngeen seet lu mu saf. waaw su boobaa ngeen ñëw ngeen jokkoo feedback fii la ñoo em ak yéen ñu muuf suñu beneen shop bi jërë ngeen jëf. waaw comme ni ma leen ko waxee rek ñu still ñu ngi si independence vibe bi ñëw naa suma nekk shop bi xam nga rek yëfi bandi gaaw comme Ferrari ñoo waxtaana kenn si gars staff yi mu wax ñu lu amal si independence market place bi sista na def. maa fi na def waa jaama comme to Inko Abuse. tur bi tur Mariama Thiam. Mariama ñun suñ bàyyee xel Inko every time bu ñu ne market place rek Inko dañ dee represent mm. yan benefits ngeen am when it comes to visibility advertising ak Q QTV. Mm. comme ban njëriñ ngeen si gis daal. waaw waa QTV ñu ngi dalal jaama yéen moom. njëriñ bu ngeen am si ñun ak njëriñ bu ngeen am si doomi Gambien si am na solo bu baax a baax a baax waa independence bii nii amal nañ leen lu ees ak lu rafet ibin nañ leen fi nii inko bu ees fii nii si Abuko Abushi Johnson Mbalik just after Tobokoto Johnson soo si leen maakaan bu ees bi lan lak la ngeen ñu amal waaw fii moom amal nañ leen bagage yu bëri pour liggéeykat yi ak student yu nga xam ne nii ñu ngi just graduate nekkuñ di def dara baax na pour ñu ñëw seet si INCO ñu wan leen suñ bagage yi. waaw mooy ñoo xam ñu ngi jàngal métier. waaw mooy ñi nga xam ne ñu ngi jàngal métier ida yaa ngi jàngal carpentry wala yaa ngi jàngal maçon wala yaa ngi si plomberie bi amal leen leen wala yaa ngi si garden bi amal leen leen wala yaa ngi si aluminium working bi amal leen leen fii ay bagage bagage yu baax baax. pour soo leen ñëwee ngeen ñëw seet si INCO ñu jox leen si bagages yooyu noonu ngeen mun a liggéey. soo waxee ay bagages yan façon bagages. waaw amal nañ leen fi bagages yi weld nii ñu ngi fi bagages yi plomberie nii ñu ngi fi bagages yi garden tools yi ñu ngi fi yéen ah, euh, bagages yi euh, safety products yi ñu ngi fi suñ safety books bi soo ko solee mun nga koo dem ak moom fu nekk liggéey doo si am benn jafe-jafe ak ñu nga xam ne ñu ngi si maçon bi. di éeg fu nekk amal nañ leen bagage yu baax a baax amal nañ leen fi daal bagage yu baax baax ak yéen ñi nga xam ne yéen ñuy liggéey si wàllum électricien yi ñu ngi leen fi amal bagage générateur si itam ñu ngi fi pour ñi nga xam ne den soxla générateur si seen kër yi wala si seen office yi wala si seen place yi daal mboolem fuñ ko soxla rek amal nañ leen fi bagage amal nañ leen daal bagage yu baax a baax a baax. te qualité. price bi seerut yomb na waaw. comme yéen yéen a ngi liggéey yéen a ngi jaay ay tools Gambia bëri na ay shops yoo xam ne ñoom tam ñu ngay jaay ay tools lan moo uti ak yeneen shop yooyu noonu. luñ uti moom si ak yeneen shop yi moom bëri na bu baax a baax parce que Inco benn du jaay mass product ñun kuwant suñ bagage dafa baax ba am na garantie soo ko jëndee di nga si mun a faj sa soxla nga liggéey si ba pare teg si njëg bi seerut. yomb na. fi mu nekk nii ñaata maakaa ngeen am si Gambia bi. am nañ Birkama am nañ Sukuta Sooma am na Basse am na abu ko fii tamit am na foofu ngeen ñëw nii right now income moom dañ ñëw pour noppal Gambians ba pare teg si den employé Gambians si nii parce que income bi yëpp ay Gambians ñoo si nekk di liggéey. soo fi mu nekk nii yéen customer yoo leen dee jaay ay bagages. dañ leen dee jox feedback si seen bagages yi comme ñu ñëwaat ñu ne he waaw bagage bi baax na trop nii ak nii ak nële. waaw dañu dee jox feedback loolu moom bëri mosli da ngay tasee nit sax mu nuyu la mu ne la waaw inko gën ne ko waa inko mu ne ma yéen seen bagage yi dafa baax te soo fi jëndee bagage lu demee si comme générateur si neen la jox garantie su amee problème nga isiwaat ko suñ technicien bi mu xoolal la ko ba mu baax mu delloo la ko waat. moom suñ bagage bi dafa baax si boppam nekkul pour sax dañuy promouvoir suñ business bi wala lu waaye képp kuy jënd inko su déglu vidéo bi dina xam ne la inko seen bagage dina xam ne lu may wax. loolu lu am la parce que ñun suñ bagage yi dafa baax amuñ benn bagage bu nga xam ne ni ñu ngi koo jaay te bagage bi baaxul parce que bi foo ñu koo jaay nañ ko xool xool ko ba pare ñu dog koo teg jaay ko suñ mbokki Gambien si. soo yéen seen bagage yi ba fan la moo jógee ko. suñ bagage yi mu ngi jógee ko ba kon da ngeen am dat partnership ak China. waaw dañ am partnership ak ñoom ñoo ñuy supply ñun tam ñu supply suñu dëkk. apart from Gambia fii nii right now amu leen yeneen uh, amu leen beneen dëkk foo xam ne in ko mu fa. waaw Inco mu ngi mu ngi Sénégal mu ngi Gambie. soo yéen right now lan ngeen waajal lu ees loo xam ne comme yéen a ko waajal daal. ñu la ñuy waajal lu bari bëri bëri bëri waaye si jotee rek yéen customer yëpp di leen ko yëg incha allah ba di ngeen ñu gis tamit si trade fair looy tàggatoo ak sa ñi yi ñu laa seetaan. waaw may tàggatoo ak ñoom di leen jaajëfal bu baax di leen gërëb yéen waa QTV. parce que seen magasin bi am na solo bu baax a baax si si si si réew bi waaw ñu may ñu ngi jaajëfal tam suñ customer yu ñuy seetaan customer inco yëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen wax ne ñu gën a ñëw xale yi ndaw yi suma maat si ñu ngi leen ñuy ñaax ñoom ñëpp ñu ñëw seet si inco ñu wan leen yan bagage leen fi am ñu jóg ñu liggéey daal incha allah. te ku fi bëgg a ñëw tam man téléphone numéro la moo ko. waaw ku fi bëgg a ñëw mooy Abuko Abushi after Tobokoto Johnson. Kufi fi bëgg a ñëw mun ngaa call si suñu téléphone number three three nine eight nine five one. 98 951 ku bëgg ñëw fii mun ngaa call si number boobu noonu. jërëjëf. Hey dear viewers, we are at our next shop. We're here at AAW Company. We're here to see what they have for us on the Independence Marketplace. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm doing good. Yourself? I'm I'm okay. What's your name, please? TK. Okay, how are you? T-K-A-Y. Nice. Okay, we're here at AAW. What do you have for us on the Independence Marketplace? Um, for Independent Marketplace, uh, we have ties, we have center table, TV stand, we have furnitures, we have uh, lights, you know, we have all the things upstairs, which is beds and uh, mattresses. So we have so many things for you people for the independent um, we have so many people that are venturing into this kind of business. What do you have that is different from other shops? Oh, great. We have, even our marble can tell you that we have different things. For here, if you buy anything from here, it's very different from any other shop. I can assure you. What's the quality of your product? The quality of my product, you can see it for yourself now. Because if you touch my marble and go and touch the other shop, they don't even have it. Very guaranteed. Let me show you the example here. <laughs> so this is how you test your yes. this guarantee of your product. Yes, nice. What else do we have? Like mattresses, bed, you know. Let us say furnitures. Sister na nga def. Jaama rek neen. Tur bi. Adja Banna Kebe. waa waa QTV ñoo leen ñëw seet si si Independence Marketplace bi ñu bëgg a xam la ngeen ñu amal si Independence Marketplace bi. so tey moom lu am bari na. Um, quality stuff nañ af nañ fi am bagage yoo xamante ne fenn rek nga ko mun a amee mooy AAW suñ toogu yi they are the best quality quality la yoo xamante ne mun nga koo jël fi ba ten years you are so that am nga toogu yu baax yoo xamante ne yeah we are not even scared of our stuff honestly am nañ ay marble table yu dëgër yoo xamante mom. the quality is just number one xam nga lampa yi am nañ fi fan lights fii daal loo soxla carpets loo soxla rek ñun daal we are here for the Gambians especially ko moom doomi réew mi la te ñu ngi fii di liggéey ak moom ah nekk di def lu nekk mu ngi indi bagage yu baax taal yu dëgër lañ am. so bagage yi nii ba fan la moo jógee ko. bagage yi ñun dañoo am different places yu muy jógee am nañ America am nañ Turkey am nañ China but it's all the best qualities that we bring in the country. because xam nañ ne comme doomi réew mi moo ko moom te bëgg na doomi réew moom buñ buñ dem beneen dëkka di indi soo moo tax mu indi bagage yu baa bagage yoo xamante ne am fii rek nga ko mun a amee si EAW. business owner moom ku nekk moom kenn du toog mu ne ma lu maa jaay baaxut ku nekk dafa toog waaw man maa am the best quality lu maa am dox lu man lu ma am doxu mën a gis feneen understand what I mean so yow la moo la jox yéegi boobu noonu yow loolu foo ko teg. xam nga di gis bokku fa. yéen ñëw ngeen gis ngeen te toog nga yaa ngi koy yëg nu mel sa yaram bi. comme nuñ ko doon waxee rek we have the best qualities quality bi benn la the stuffs are unique xam nga bagage bagage am nga léegi jamono bi dafa métti xaalis amatut so loo xamante ne you are putting thousand in it xaalis bu bari wa ngaa fexe nga jënda bagage bu baax moo tax ñun lépp loo xamante ne dañ koy indi like one or have an year mu yaa we are not into it honestly we are here to work and to work and bring good long period of it we are not scared of that honestly boo xoolee suñ lal yi comme yu nekk fii seen ginnaaw ni lal yi am dëgër na mattress bi soo soft boo fa tëddee sax doo bëgg a jóg so ñu ngi am boobu noonu nga xamante ne mu nga koo use speaker and everything and it's very dafa dëgër dëgër këj la def na yéeg tëb dal dara ragaluñ suñ bagage boobu waaw loolu leer na nañ so da ngeen mun mën a am feedback from customers yeah honestly we do la la la la ku ñëw rek daf dee indi keneen tamit pour mu ñëw xool because anytime bu jëndee keneen bu ñëwee they know that the qualities are just unique um, suñ bagage soo ko munti jënda anywhere that you go in the Gambia you know that you bought it from AAW doo ko mun a gis feneen. rey naa ko boo ñëw si shop bi shop bi falane um, shop bi mu ngi uh, uh, bourse bi phase two Kombo Costa Road bi foofu la nekka soo ñëwee ba foofu rek di ñu gis incha allah. ok yan téléphone numbers la leen mën a rujee. Um, téléphone number bi um, ñu ngi am bu boos boo xamante ne boobu anytime boo ko koolee di nga ko am 211 um, 0119 ma jox la man suma boos bi 780 3981 ma. looy tàggatoo ak sa gars yi ñu laa seetaan. lu may tàggatoo de reen la mooy we are all Gambians ñu ngi fii pour liggéey pour yóbbu suñ réew kanam so bu ñuy indi booy jënd bagage bagage yi baax na bagage yi quality na te di nga xamante ne bu anytime boo ko defee ni ñi bu ñëwee sa kër di nga mun a sigi na fii maa ko moom waaw nañ ñëw ñu jàppalante as Gambians comme doomi réew moo ko moo moo ko moom mu ngi jéem a góorgóorlu def lu nekk pour sagal réewam soo nañ dimbalante rek ñëw ànd ak moom liggéey suñu réew. still yi ngi program seen programme independence marketplace bi té ñu doxantu be Jimpex jabanté enterprise ñu yossé lu ñu amal si independence marketplace waji na nga def. ma ngi sante yalla bu baax di leen dalal si Mbaykounda jàppante. tur bi. Baboucar Top. ñu ngi wour right now si shop yi suñu client yi seet lu ñu amal si independence marketplace bi so ñu bu a xam yo la ngi ñu amal si independence marketplace bi. ok euh, euh amnañ fi different product like building materials spare parts uh, ak like uh, bëri lu ñu amee daal like uh, comme ñi nga xamante ni nii dañ dee bëgg a bagage yi ñu am ne comme ay lampa affaire yi noonu yëpp am nañ ko daal anyway oh. lii recifa la lii double di fati lii via British very good quality kooba lam yi gis nga ko nii lii lam holder la yi ay Eh, naka lañ ko waté ay lok flos do la ñi nga xamanteni ni xamna ñoy sampa es mom danañ kontan li nga xamanteni ni moy building matériel mën ñu dem tamit si spare parts ñi nga xamanteni dañ am moto eh, bagage yi nga xamanteni dañ ko dee soxla because xam nga fi mom site bu nekk rek eh, taray nañ be def ci ben lifin bu am solo pour ku nekk ak gis ci bopam lolu moo tamit ifin gis nga li bagage yi moto la moo xam filtre moo xam water pompe du bare bare dal anyway ak engine oil moom moom eh, mom moom is di bes yaakaar naa yéen xam ngeen ko dëkk bépp xam nañ ko mooy route ak yi ngeen di gis nii kuwaale duñ benn nag ma wax yéen ñëpp di whole Gambia ngeen déglu bu baax lu ma leen wax any product boo xamante ne ni Mbaykounda jàppante ñoo ko moom da ngeen fa gis mustard mustard o MBY MBY waaw lu suñ product moom loolu moo fa dee nekk any ku leen mënte jaay bagage nak, gisu leen fa mustard gisu leen fa eh, eh, MBY ah boobu moo xam leen ne moom nekku responsabilité Mbaykounda kenn du wax ne lu maa jaay baaxul waaye soo génnee si dëkk bi fii nga laajte dana la wax ne Mbay Kunda moom macha allah parce que wax dëgg yàlla ah, xam nga business tamit daf dee baax ngay seet sa diggante yàlla xam nga sooy sooy liggéey ak ay jullit comme yow da nga war a xool sa diggante yàlla ki ngaa jaay tamit mu am yëg-yëg si loo ko jaay waaye xam nga bugga naa jaay rek dem eh, moo xam Chine au Dubai jënd product boo xam ne is very cheap ñëw jaay ko. Euh, kenn mu use ko benn one week two weeks mu yaaxu loolu moom baaxut. moo tax amul garantie daal. non amul amul garantie bagage yu bon ñun moom loolu la ñoo avoid loolu moo tax euh, bañ mix moo tax ñu utal suñu bagage yëpp. waaw alhamdulilah because wax dëgg yàlla tamit affaire si tamit am na tuuti euh, différent daal. ñu bare bare suñ ko gisee dañoo xam ne exactly fii place bii fële la so wax dëgg yàlla alhamdulilah. kon war si suñu programme. <laughs> moom. <laughs> loolu moom afta incha allah. loolu ne loolu nañ si waa. waaw nañ si waa incha allah waaw. so yéen rey na ko boo ñëw si seen shop bi. am nañ ko Bundung opposite génne Garas am nañ ko Tontebul am nañ ko Sinthiou Alaaji ak Jimpex fii ni waaw yii daal mooy shop yi nga xam ne moo la Mbaye Kounda am képp koo xamante ni boo ngaa jënd produit bu baax maa la advice demal si Mbaye Kounda jàppante si place yi ma lim nii nga defoo soo demee any produit boo bëgga ak Birkama exactly Birkama Johnson Gunjur ak Birkama si biir maget bi tamit am nañ ko fa soo ku bëgg a daal fi ma la direct nii demal foofu incha allah doo ko rëccu. soo yéen seen bagage yi ba fan lañoo ñoo jógee ko. ok dañ dee dem China euh, Dubai Tokki waaw foofu yëpp suñu bagage dafa dee dafa dee jógee bu yan téléphone na ma la leen nit yi mën a rëcce. ok su nekkee fii si Jimpex 77 229 56. 7326292 am nañ ko fa kooku mooy mooy suñu boos ñu ñëpp mooy ki nga xamante ne moom moo de moom mooy boroom compagnie bi daal di Moustapha mbay koy ñëw seetaan nee naa la bu fet di jot rek QTV mu ne nga toog sa kër ñu won la li nga xamante ne moom la nit ñi am ci biir marché bi di ko jaay bis Gambian population bi ba happy independent yàlla nañ ko yaaga celebrate ci at yu bëre bëre yàlla jàmm yaaga sax fii ci réew yi ak réew yi ko wër di ñaanal ñëpp kilifa diine kilifa aaday képp koo xam ne rek gambeen la ñu ngi laa wish ah, happy independent jëri ngeen jëf